jërë ngeen jëf mbokk yi daleen ak jàmm li gën a ci bopp xibaar yi réew mi njëkkee koog nag kaddu yamu jibal moom Ousmane Sonko euh, jëmale ko ca Farba Ngom la xam le moom Ousmane Sonko daal Farba Ngom alal ju takkul a jël nag di ko campagne foofee ca dëkk ba mu ne di añam waaye nag alal joojee mu jël lépp dafa bëgg a corrompre ña nga xamante ni ñoo fa dëkkee ngir nag ñu mën koo votel ci élection législative yi ñu jëm waaye Ousmane Sonko ma ngay artu di tëkku ki nga xamante ni mooy Farba Ngom di ko xamal ne daal na def kemtulaay kattanam ndax nag bii mooy doon dernière élection am ba muy def ndax dootu ko talati mbokk yi bu ma ca jógee ma dem ca mam Mamay ñaa wàllum Prodac ak coow la ca am nag dig moom jàpp na ca ñaar ñi nga xamante ni daal da leen di toppee alal junu luubal jëm ca Prodac ku ci mel ni Mamina Dafe nekkoon coordonnateur programme Prodac ak ki nga xamante ni mooy Ibrahima Cissé nekkoon a gérant entreprise nag yoon moom mujjee na leen a teg loxo jëm ci wàllum Prodac ak alal jën leen di toppee dañ ko luubal mbokk yi ba jóge ca dem ca la jëm jëm ak nag étudiant ya nga xamante fi mu nekk nii dañoo mer ba futlu seen àq ak seen i yelef daal la ñuy ñaxtu ko nag ci gouvernement bu yees bi fi nekk nag loolee tax daal tey ci alxames yu ñu daal di génn jàkkaarloog nag takk der yaay sànnante xeer ak lakkaromosène moo fa amoon nag waaye fi mu nekk nii daal diggante ñooñee nga xamante ni mooy étudiants yi ak takk der yi moom tàngoon na tey jër foofee ca UCAD ci alxames ji mbokk yi bu ma ca jugee ma dem ci wàllum sport diggante Burkina ak Sénégal nag mas ba ñu war a amal Pape Thiaw nag daal di convoqué ab listam jëm ci ñeent fukk ak juróom ñetti jour yu mu woo waaye nag ñu ràññee ca nga xamante ni daal bokk ci ñi nga xamante ni ay locaux lañ di football fi eh, ci réew mi waaye tamit ñan ngi cay ràññee ki nga xamante ni mooy Krépin Diatta am ci tanière bi nag mu bokk ci boobeeb liste waaye nag mas boobee nga xamante ni dana daw ci diggante Sénégal ak Burkina dañuy xëccoo kan mooy jël première place ba mbokk yi bu ma ca jugee ma dem ci wàllum làmb diggante Reug Reug ak Boy xam ne ne euh, combat boobu dina am le premier janvier jëm ci atum deux mille vingt cinq euh, diggante ñaari doomu banlieue yooyu mu doon nag le choc la banlieue euh, diggante Reug Reug ak Boy Niang mu doon combat bu nga xamante ni amateurs yeeg fans yi dañu koy xaar ba tey ma des ci waa production beneen combat bu ñu taxawal diggante Ada Fass ak Lac de Guiers 2 waaye combat nag amagul date ndax ñoom jàppagun ko waaye daal yëgle nañ de combat yi nga xamante ni tëgg nañ ko diggante Reug Reug ak Boy Niang Lac ak Ada Fass yooyee combat dina am ci saison deux mille vingt cinq 2025 bii ñu mbokk yi lee fi jotoon a ci ay xibaar yu leen doon yeggee di leen jox dig daje ëllëg ci yeneen jotaay xibaar fii ci Welcome TV jërë ngeen